gis nii jar na ko de. waw jar na ko moo nuy indi ci yu mel ndax ndax ndax ndax xam nga lu tax. Hmm. Ah, gis nga. Hmm. ngasum raay bi bi ñuy gas raay bi. Hmm. ah. Cheikh war demoon na ca. xam nga ne jamono sëñ Modou Moussa koo xam ne kii day laaj addiye ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett booba dara amul. dara amul xoolal fi yoon ma tàmbalee nag di ñëw. Ah, waaw ah. ñuy dem ba sëñ bi li mu ci ay xiiwal bari kenn ko ci nekk. géeju ci biir xiiwal yooyu ba fees dell mm-hmm. bëgg jàng ñaari téere ñett téere juróomi téere mm-hmm. bëgg a fab ay tariqa teg fee daal ne liyay dëgg mm-hmm. te yow yow mi wax naan liyay dëgg téere yaa ngi wax ak yow wax dëgg ko ah dëgg eh, am na ñoo xam sax dañ naan yoon yoon wi newut ci téere yi ah kay téere yi kay li ñuy wax moo yoon wi li ñu digle mooy yoon wi li ñu tere ah li ñu tere mm. loolu la yoon wi tere li téere yi digle moo yoon wi te li téere yi tere moom la yoon wi tere mm-hmm. kon yoon wi kay mu ngi ci alxuraan mm-hmm. ah? am am na ñu bari ñoo xam ne ñii mm-hmm. ab téere la fab def ko si sëriñ ab téere mënut sëriñ day digle ak a tere waaye mënut sëriñ de ab téere mënut sëriñ maam Cerno Ibra Faati kenn gënu koo xam alxuraan daa bàyyi téere daa daa fab taare téere yi boo daa fab boppam boole téere yi ñëw jébbalu ci lu wér. maam Cheikh Anta daa fees dell. fab téere yi ànd ak moom ñëw jéblu. Ah. sëñ ma ndumbe daa fees dell. Mm-hmm. fab téere yi ànd ak moom ñëw jéblu. dëgg la ah. Mm-hmm. maam Cheikh Rayo Fall. Mm-hmm. ay maamam ay maamam ba ci ay maamam ba ci ay waajuram ñëpp a jàng alxuraan ba fees dell. Cheikh ay doomam a jàng yii fi nekk. borom yi xam-xam lañu. waaye teewul dañoo jéblu. Ah, kon am sëriñ ak ub téere bokkul. ah ab téere li muy diglee ka tere loolu la ab sëriñ bi diglee ka tere waaye nag nit ki faatu nga dekkil ko nekkul ci alxuraan kon loolu baatin la mm-hmm. loolu nag ab sëriñ da koy def ah? ñu bari faatu nañ fee sëriñ dëkk sëñ Modou Mbène dekkil na sëñ Ablaat mm-hmm. ñu bari bari sëñ Ablaat Fall ndax dekk ñu bari bari dekkil loolu newul ci téere ah kon nañuy gëm baatin baatin nañu jëm baatin baatin mooy mooy mooy yoon bi baatin la mm-hmm. waaw loolu nag mm-hmm. loolu lu jar a xam na moo tax waaw est-ce que alhamdulilah jërëjëf ñëpp naqar naa sama bàyyi am na yàlla sa borom guddal